voilà pont Kër Massar baa ngi noonu ubbeeku na nga euh, population bi ni ñuy wane seen mbëkk yi euh, alhamdulilah rabil alamin euh, jafe-jafe yi nga xamante ni nii amoon na fii ci Kër Massar ginnaaw ci wàlla boog à partir de tey dafa mel ni sunu xel ci xelu ñu fi dëkk ak ñi dëkk fi jege Kër wala boog ci département Kër Massar bi yëpp kontaan nañu ndaxte tey ji yàlla ngi dogal nii ñu dëkk ay buun ak ñu dëkk ay njaxiraat ñu dëkk ay euh, euh, kii yëpp macha allah sun borom def na sutura ba euh, léegi circulation bi ubbeeku na voilà mi ngi noonu gis nga nga yi nañu kontaanee nga gars yi kontaan nañu